man pas comme tu voulais. merci. La parole est à notre collègue euh, Maria Pidien, suivie de Thierno Diop. alaikum, lay monsieur le président de l'assemblée nous les nous nous, nous, nuyu ñi nga nous SG nous aussi madame la ministre nous, sommes ministre bu mu aussi avec le ministre Sambassi, ainsi que vos collaborateurs madame la ministre Madame daan am êtes boo ñëwee assemblée nationale ma jël cadre. peu importe le ministère bi nga porté jàkkaarloo ak yow une d'abord parce que vous êtes une femme mais c'est une fierté parce que nous, la dénk da ko daan liggéey bi mucc ayib amuñ ci benn ñu ci madame la ministre si la daan à l'Assemblée nationale bu ñu indee projet budget ñu daan voté en commission en plénière li ñu en commission di voté les budget parce que xam l'intérêt de la population bu ma ñëwee en plénière même bi am j'ai toujours voté oui pour l'intérêt du peuple j'ai voté oui pour l'intérêt du département de Keur nga ne fa laa bokk parce que les budgets sont faits pour ça. Madame la ministre elle a aussi ministre de la baagante qui ñëw yéeg sa morom yéeg ñu dégg ministre muy gouvernement muy les députés Benno Bokk le président de la République wax y amna des ay forces occultes un ay terrorisme amna infiltration amna na ma ñu gëm que wax parce que c'est la personne la plus renseignée au Sénégal loolu weesu ñu koy liggéey di ko làkkati pareeguñu ngay ñëw toog fii dañu vous voulez un pardon national ñun ñu ciy fekk ñun ñu bëggoon ko yàgg na ñun ñu ñëw teewal fii le peuple on veut le pardon on veut la réconciliation mais on veut que ça soit basé sur des faits réels on veut que ça soit basé sur la vérité absolue et jusqu'à présent on n'a pas encore la vérité absolue xamuñu ku def xamuñu ku deful xamuñu la ko waral madame la ministre fii gis naa fi ñu wax ko en commission indi fi ay yeneen dëkk yoo xam ne lii amoon na fa waaye les contextes ne sont pas pareils ñun li ñu fi indi dama jàpp ne li doon référendum la doon sa am quatre-vingt-dix pour cent des voix de Sénégalais parce que li ngeen bëgg indi tey ñoom gëmuñu ko fii bëri na ñu fi toog naan koo voté danañ ko voté dafa am fu ñu féete waaye gëm naa ne pour ñu toog seen xol xam ne que jàpp nañ ne que même bu ñu ko waroon voté ëllëg tey dañ ko war a leeral tey la wax neex tey danañ ko wax ku gis bopp sa bopp ci li may wax.

ñun bañuñu ku ñu woo ci jàmm ndax man PDS bi man libéral la pure et dure xam nga ñu ñu xam ñun ñu dox ci ay néew pour dem ci nguur ñun xamuñu loolu waaye nag luñ ko ñàkk ñàkk xam dëgg rek mooy mucc xam nga muy dëgg li xew diggante deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre lan la kan moo am dëgg ak ku amul dëgg ak nag foo mën a nag muy man muy sama morom muy pouvoir muy opposition population bi nee nañ def des économies yoo xam ne nii kenn des des familles yoo elles ont été détruites et vous vous levez un bon jour et vous nous dites le pardon national on a besoin on n'en disconvient pas on aurait dû le faire il n'y a pas longtemps on a eu deux ans de 2021 2022 2023 2024 le bëri le président Macky Sall nag dama il a un bilan matériel man ma fekk jëf man du ma nee démb waaw tey mën a déet la ma gëm mooy am na bëgg-bëgg liggéey la ma gëm mooy liggéey na fa liggéey mën a yem fii la ko yàlla yemale ci moom dafay dem am na lu mu bëgg a def muy réconciliation mën na nekk ñu ko muy wuutu xam ne li gën ci Sénégal moom donc bëggul Sénégal te bëgg na ko mais ñi bëgg nañ ko dinañ ci àgg insha allahu rabbi waaye day fekk nag ñu mën a situer les faits xam ku def ak ku deful wasalaam Merci, cher collègue La parole est à notre collègue Tierno Diop, suivi de Tierno Alassane.